mangoog euh, daañu ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo mbokk yi ci noonu ñu jukkil leen xeetu yéenekaay yi euh, fas yéene ko door rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar ci noonu la jiitoo ci géopolitique bi. Euh, xëy duñu jàngatal njiitu réew mi euh, Macky Sall ci waxtu wi la yéen cabinet bari na ca ñay euh, joge ca coalition Benno Bokk Yaakaar gamu jiite loolee nag tàmbale ko gàllankoor ak ñi taxaw tembe fas yéene gàntal candidature njiitu réew Macky Sall ci élection présidentielle yu 2023 ne warta 24 ne warta doon candidat moom njiitu réew Macky troisième mandat du fi amee bu ñu sukkandikoo ci waa F24 yéen cabinet Walf Quotidien ñaari mbir yi la sës nañu njiitu njiitu réew mi Macky Sall wala boog tax na njiitu réew mi Macky sës ca mur ba ndax ñaari mbir a ko tënk ci waxtu wi la yéen bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk ñu ngi seen euh, coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi gën di ñàkk majorité am ci assemblée nationale ndax kenn ci député waa réew mi euh, daanaka doon na député non inscrit foofee ca pencum ndaw réew mi gannaaw bu Idrissa Seck euh, taqalikook Benno Bokk Yaakaar yéen a ñu dégtali tamit accident yi nga xam ne ñoo ci circulation bu Sénégal Euh, lu ëpp euh, juróom-ñaari téeméeri doomi aadama euh, yu toftal fukk ak juróom-ñett moom la ñu xayma ne ñoo faatu ci atum 2022 gi weesu ci wàllu accident yéen bi xëy ñu ko leeralal. ci xëtam bu njëkk yéen bi di Le Soleil xëy di ñu dégtal jigéen ñi yéen kaa bi ñuy xam lekk soxna faatu Fall dugg na ci taarix bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay bi nga xamante ne dikkaat na ci ci xëtam bu njëkk. Euh, bokk na ci euh, daañ ci dikk léegi incha allah ci euh, ndombal tànk gi nga xamante ne am na ko moom soxna Fatou Fall doon général l'observateur mu ngi ñuy dégtal njiitu réew mi Macky Sall ëllëgëm ci jamono ji ci bopp coalition Benno Bokk Yaakaar wala bokk Benno la ñu bëgg a xam ëllëgëm ndax njiitu réew Macky Sall ba léegi kenn xamagul ndax dina doon candidat am déet te ba léegi amagul plan B goo xamante ne waa Benno mun nañ cee ngoy bu fekkee ne njiitu réew Macky bokkul ca ñay dagaan baatu askan wi. Euh, l'observateur moo ñu ko yeggee jaxaay moom ak la fa xew ak euh, ab maçon boo xamante ne mu ngi doon artal xërtal ay ndaw euh, ñu ci wàllu ngóor jigéen nam nam leen doon jëflanteek Euh, li nga xamante ne itamit euh, test yañ ca amal ci wàllu sida yéen kaay bi di l'observateur dikkaat na ci mu ñuy ñuy dégtal itamit euh, ñaari taskatu xibaar yi nga xamante ne daañu wuy ji yoon Moustapha Diop bu Walfadjri mi jiite wal fajiri ak Babacar Touré Kewelo yéen cabinet police moo leen woolu mu ngi ci yenn kaay bi di l'observateur yéen kaay yi geneen ci xetu écran bi ñu dégtal leen ko Euh, bokk na ci euh, le 24 euh, heures ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal li nga xamante ne mooy wallu politique ak li ci bees mu ngi ñuy dégtal li nga xamante ne mooy enjeu yi jëm ci wàllub politique ak politicienne mu ngi ñuy dégtal la ca mun na xew fileeg 2024 assemblée euh, nationale ak i tamit Idrissa Seck euh, na mu fexe ba nar a gàllankoor njiitu réew mi euh, Macky Sall Fatou di jigéen bu njëkk gañu takkal grade général médecin général de brigade yéen cabinet turam dugg na ci taarixu Sénégal ba faw ñu xoolaat yéen kaay geneen ci écran bi mu ngi ñuy dekkal Libération dellu soit na Eh, ci xëtam bu njëkk eh, ci wàllub eh, business boo xamante ne tenku na ci wàllub certificat de nationalité sénégalaise trafic googeek décret ya ca tënku te awul ci yoon mbir yàgg la ca jot a subleeku ak ñañ ca jot a teg loxo libération xëy ñu ko leeralal libération mu ngi leeralal li la xasu ci wàllub ki nga xamante ne mooy Moustapha Diop directeur bu Walfadjri Euh, foofee ca police centrale bokk na ci dañ ko war a déglu mu doon seede ci mbirum Pape Ndiaye mi yoon teg loxo fan yi ñu weesu euh, kii di ki nga xamante ne mooy Babacar Touré bu Kewelo euh, policier bi nga xamante mooy Frédéric Nappel moo ko porté woon plante ba tax na loole la fas yéene leeral ji ci kanamu enquêteurs yi. yéen ak caabi di euh, yor-yor bi ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal Ousmane Sonko soobu na ci nemmeeku tuur ca Ziguinchor xam le ne dogalu suñu borom rek moo mun a gàntal euh, seen i yoon waaye nag du mbindeef bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko ñaawlu nay tamit doxalinu njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram euh, mu ngi ci yor-yor bi ci xëtam bu njëkk. yéen kaay bi nga xamante ne mooy le euh, témoin ci xëtam bu njëkk mu ngi ñu dégtal euh, li nga xamante ne mooy euh, njiital opposition bi sa Seck ne moo fi teg tànk ndax moo jël ñaareelu place. Euh, ci élection présidentielle yu 2019 Idrissa Seck bëgg na dabuwaat la mu jotoon na ñàkk xëy na ci géopolitique bi fas yéene euh, samp ndëndam ci opposition bi ngir jàkkaarloog njiitu réew Macky Sall ci élection présidentielle yu 2024 armée bu Sénégal général mbay Cissé euh, demb lañ ko jox ndombal tànk gi ni mel bokk na ci mu jiite armée gi la mu ne dina ko béy ci waar wax na ko demb yéen a kaabang ñu dégtal hôpital principal municipal général Fatou Fall moom la ñu fal bees médecin chef mu ngi ci yéen kabi di la témoin mu ngi ñuy tàggee génn paduna professeur Malick Ndiaye bu université Cheikh Anta Diop démbul nelaw yéen kabi ne kàngam la woon euh, ci euh, wàllu politique wala wàllu bokk na ci tamit kàngam la woon ci wàllu euh, njàng meek njàngale mi fii ci Sénégal béy waar wu yaatu ci wàllu démocratie yéenekaay bi di euh, réew mi euh, quotidien mu ngi ñuy dégtal lu waaju ci euh, statut chef de l'opposition ki gën a am taxawaay gu mat sëkk ci ku jéeg politique bi ndax njiitu réew Macky Sall dina topp ay tànk njiital parti réew même déet ndax njiitu réew Macky dina mujjee eh, féete ji ci ku jég bi laaj la gu samp Ousmane Sonko ak Idi ñu ngi xicco mbir ya chef de l' opposition yéen kaabi di réew mi quotidien moo ñu ko yëggee jot nañ ko installé démb euh, nouveau semga général euh, Mbaye Cissé euh, wax na lamu saso war ko liggéey feuille de route am jot na ko faram-fàccee démb Euh, ci kanamu askan wi mu ngi ci yéen a bi di réew mi euh, quotidien yéen a bi di le peuple quotidien mu ngi ñuy dégtal idek euh, Macky daanaka féewaloo am na ci wàllu politique ñoom ñaar kenn ku nekk bern sa langu bopp yéen a bi du jàngatal li sooke jafe-jafe yi ak i tamit député Mariatou Dieng. Eh, bu parti réew mi eh, jóge na ca mouvance eh, jóge na ca li nga xamante ni groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar doon na député non inscrit foofee ca assemblée nationale armée bu Sénégal bokk na ci jël nañ ci jigéen goo xamante ne dañ ko tàkkal gradu général yéen bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal. Euh, soxna si yéen kab yi di euh, le quotidien mu ñuy dégtal majorité gi nga xamante ne moom la ñuy doon euh, xooli ci assemblée nationale camp présidentiel bi maanaam mouvance présidentielle beeg Benno Bokk Yaakaar majorité gañu ne moom la amoon ci assemblée nationale loole mu ngi tàmbalee wàññeeku ndax Mariatou Dieng mi nga xamante ne député non inscrite la Benno Bokk Yaakaar daanaka dese na lu toll ci juróom-ñetti fukki député ak ñaar. mu ngi ci euh, yéenekaay bi di euh, le quotidien yéen a bi di euh, l'évidence euh, ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy lu waaju ci euh, maanaam gannaaw Pape Ndiaye ma yoon teg loxo Moustapha Diop directeur bu groupe Walf directeur bu groupe Walfadjri fas yéene wuy ji tey waa police ëllëg incha allah ci alxamis gi lay doon ndax seede la ca lañ koy laaj ñeen mbirum Pape Ndiaye Babacar Touré bu kéweloo yi tamit woolu nañ ko ab policier moo ko porté plainte ci wàllu diffamation yéen a bi moo ñu ko déggee ci xëtam bu euh, njëkk yéen a di la dépêche républicaine mu ngi ñuy dégtal teer beek euh, jumtukaay mu amee ngir gën ko ñoŋal yéen a bi xëy ñu ko leeralal Abdou Ndéné Sall euh, mi jiite SETER waxtaan nag la dépêche républicaine. yéen a bi di euh, turbine mu ngi ñuy dégtal lu aju ci euh, li nga xamante ne mooy groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar am na lu ci tàmbale daanaka euh, na sax ndax Mariétou Dieng bu parti réew mi doon député ci assemblée nationale génn na ca gurogule groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a Seck jël na revanche am ci njiitu réew mi Macky Sall mi ñu ne daanaka mu ngi tàmbale ñàkk majorité gañu doon bàkko ca assemblée nationale bokk na ci tournée eh, tekki eh, jot na Bougane Gueye Dany sobu na ca ci diiru fukki fan ak eh, juróom-ñaar. Euh, fépp la tàmbalee wër ci réew mi jot naa demagum lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay commune euh, mu ngi ci yeneen kaab yi yeneen kaab yi ñu dégtal combattant goo xamante ne euh, dem na daanaka yàgg na xeexal Sénégal ci fànn yu bëri professeur Malick Ndiaye sociologue bi génn na àddina démb yeneen kaab yi xëy di ko delloo njukkal di ko ñaanal suñu borom suñu borom xaare ko ca àjjana ya gën a kawe yeneen yi di l'info mu ngi ñu dégtal commandement bi. ak général mbay Cissé mañ ca fal bees nouveau semga geek xam le ne daal euh, li ci sas wi euh, moo ëpp euh, li ci sag wi maanaam lañ ko la mu war a sasoo moo ëpp la muy sagoo ci ndombal tànk gu bees Eh, mu amee ne dina ci béy waaram démb la ko xamle ci kanamu askan wi yéen a kii di eh, Sud Quotidien mu ngi dégtal assemblée nationale majorité bu Benno Bokk Yaakaar ne ci jafe-jafe ndax eh, député Mariatou Dieng bu parti réew mi bana coalition présidentielle bi ba tax na Benno moom daanaka deltu na ginnaaw ndax juróom-ñetti fukki député ak ñett amoon bi yoon nag juróom-ñetti fukk ak ñaar ñoom ñoo am ca googule groupe parlementaire Euh, yéen cabinet jafe-jafe yi ko mun a dab moom Benno Bokk Yaakaar euh, Sud Quotidien euh, xëy duñu ko jàngatal faatu Fall di jigéen gu njëkk a doon maanaam am grade médecin général de brigade Eh, ñeel armée bu Sénégal yéen cabinet delloo nañu njukkal eh, jigéen ñi yéen cabinet di eh, critique mu ngi ñuy dégtal waaju ci élection présidentielle yi nga xamante ne daanaka ñu ngi ci jotoon a ràññee ci wàllu politique tudd amoon na fi ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng Moustapha jiite woon itamit assemblée nationale ci jamono njiital AFP. Eh, ba ci maître Abdoulaye Wade mi fi jiite woon PDS yéen a cabinet eh, daanaka eh, yëf yi soppeeku na ndaw ñi ñoo taxaw tembe ngir jiite réew mi yéen a moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk bu ñu sukkandikoo ci ndaw ñi tàmbale tàllal seeni loxo ngir itamit dagaan baatu askan wi. yéen a bi di euh, Source A mu ngi ñuy euh, majorité bi demeetul noonu mu ñeel coalition Benno Bokk Yaakaar Mariatou Dieng député bu euh, parti réew mi génn na ca groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar yéen a bi di Source A mu ngi ñuy dégtal yokkuteb Payor. Euh, foofee ca SETER ñeel train express euh, régional yéen cabinet lu bees am na fa bu ñu sukkandikoo ci direction euh, général ak dogal yamu jël ne képp ku fa def lu ëpp maanaam lu toll ci ñaari at daanaka di nga am contrat à durée déterminée goo xamante ne daanaka daañ la ko signal ci lu gaaw yéen bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk. yéen yi geneen ci xëtu écran bi le point info mu ngi ñuy dégtal euh, directeur général bu direct news jogo euh, Diogoy fay am lu muy leeral euh, ci biir yéen bi yéen kaay ba ñu dégtal Habib Niang mi ñu ne mooy mooy jokkeer bu bees bu njiitu réew Macky Sall ngir dooleel Benno Bokk Yaakaar ca Thiès gannaaw bu Idrissa Seck du moyo njiitu réew mi Macky Sall mu ngi ci le point info yéen bi di direct news xëy di ñu dégtal li nga xamante ne mooy IDEC Sonko daanaka mbicok mbaalo gi tàmbalee am ci chef de l'opposition kan moo ëpp doole ci kujjeeg politique bi eh, Idrissa Seck eh, jàpp ne mooma Sonko ne déet eh, yéen kaabi xeetu ñu ko leeralal yenn kaabi di stade ñuy dégtal li nga xamante ne mooy jongante gi ñuy xaar ci Prime League City ak Arsenal 19 heures 0 minute lay doon yenn kaabi xeetu ñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk yéen kaabi di suñu lamb Ama Baldé Gris Bordeaux combat googee ñu ngi koy séentu ci weeru euh, sulet waaye nag li jaaxal ñëpp mooy euh, promoteur ba ba léegi Ibrahima euh, a àddoodu ci. maanaam Addo Tucci euh, promoteur bi demul ba léegi wuy ji waa CNG ngir ñu mun a régularisé maanaam boog waxtaanee googule euh, combat Ama Baldé Gris Bordeaux mu ngi ci euh, suñu lamb komba ba faf naa tagatembe dañ ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo mbokk yi li tënk la woon ci xibaaru yéenekaay yi daan leen ko faram-fàcceel ci xibaaru digg bëccëg gi jaajëfal Isaaxa Diagne mu ne woon ci machine bi feggoo ko ajarat